mu ne it boo tiimale farata mën ngaa jàll teg ca laal ab kaamil wala tari alquran ci sa làmmiñ ndax tari alquran moom mën naa bañ a ànd kum jàpp waaye dañ caa sopp am jàpp moo tax te yow ndegam mën laa jàpp tiim mooy sa farata kon mën nga booy tiimal farata nga yéene ci ba noppee ci farata ji jàll tari alquran mbaa laal ab kaamil mbaa sax wër kaaba tax mel daal ñu wax ne nag day fekk wër kaaba ga nekk wërug naafila waaye bu dee wërug farata moom dañuy jàpp ne tiimal farata du mën a yóbbaale wërug kaaba goo xam ne farata la mel ne kon boo tiimalee jullik farata mën ngaa jàll teg ca wërug kaaba goo xam ne naafila la lu ci mën doon rek moom loolee nga yéene waale ca tiimu farata ba muy jullik naafila muy laal kaamil muy jàngal quraan muy wër kaaba lu sës ca farata ja ba noppee dal ko ciy sësale fekk bu dee lu am waxtu na fekk waxtoom jot ni ki buñ doon boole timis ak gee nga xam ne gee waxtu ñu koy julli boobu jotagut kon tiim bi ngay tiim di ca julli gee doo mën a jàll julli ca safaa wetar ndax boo gaawee julli gee ngir boole gi itam faaw nga bàyyi safaa wetar moom ba shafaq fàddu maanaam muxtaarum gee tàmbali nga door leen a mën a julli wa in tayam mamta ndem tiim nga li naf li ñeel naa fi la fal tu gis na nga daganal bi ci ca tiim ba jami xamaa mboolim la nga xam ne dakar naa tuddoon nanu ko fi rajo si ca rajo soo illal faridata ndar julik farata fa innaha naka moom mu ne a tereef na irdaafuha ak tofalam li xëyriha ñeel ludul moom fii maa ci la nga xam ne suriha yoona leef na ko tane boo tiimalee naafila itam bu la neexee nga jàll tegaat ca geneen naafila wala nga jàll teg ca tareel quraan mbaa nga tiimal naafila jàll teg ca laal kaamil ni ki yoor yoor jot sa farata nekk tiim naka nga tiim jul yoor yoor dal jàll laal kaamil jàll sax jàng ci kaamil ba mbaa bu fekkee da ngay tari naka nga tiim jul yoor yoor dal jàll rek tari sa làmmiñ yooyu yëpp mënees na ko man ngaa tiimal sax ak naafila bàyyi ko def geneen naafila gu bokk te googa door a def gi taxoon ngay tiim mu génn ci nag farata boo xasee tiimal naafila moom ba julli naafila ga doo mën a jàll rek daal di julli farata ca tiim boobee tiimal farata kay moo mën a yóbbaale naafila waaye tiimal naafila moom mënta yóbbaale julli farata mel na ci misaal bu fekkee sa farata mooy tiim nga tiim nag doon dawal tisbaar doo mën a jàll ci tiim boobee nga tiim di dawal dal cay julli faratay tisbaar déedéet man nga nag boo tiimee julli tisbaar jàll nag tiim boobee nga tiimaloon tisbaar moom nga jàll daal naafila ñeent rakka ci gannaaw tisbaar kon nga takk foofu ne tiimal farata kat moo mën a yóbbaale naafila ak yeneen niki laal kaamila yooyu waaye nag tiimal naafila mënta yóbbaale tiimu farata nga seetlu foofu ne ndegam farata moom nga tiimal faaw rek farata joojee moom ngay mën a julli ca tiim boobee doo mën a def jeneen farata ji bokk ci jooja door a def farata ji nga xam ne moo la taxoon di tiim mel ne bu ci tisbaar jotoon sa farata nekk tiim ngay tiim yéene julli ci tisbaar bu nga tiimee ba noppi laata ngay kàbbar fàttaliku ne julli woon suba xam ne kon suba daa war a jiitu nga teg tisbaar ngay wàcc boobu tiim daal tiimaat tiim bu yees julli ci suba door a tiimaat nag julli tisbaar wa man tayam mama ku tiim li fardil xatamati ñeel faratay marax marax jooju gee lañ ci jublu julli gee jaasa kon dagan la xooñeel ko alwitraani shafa wetar ba adaxaa ci gannaawam ifhama na nga dégg bi sarti añ yekkoona ci sartu bu nekkee daal yi muttasilan di aji jokku bi xayri ta xiiri njurul yeexe kama xalaat na mu wéere woon xablu ca bu jëkk boo tiimalee julli gee tiim ba nga tiima julli gee ga mën ngaa jàll julli ca safa wetar du aajoo nga tiimaat ngir safa wetar waaye nag dañuy sart ba nga noppee ci geega balaa yàgg rek nga daal ciy sësale safaak wetar wa bu xasee yàgg ba mu yéex bopp rek moom faaw da ngay tiimaat waaye doo mën a doyloo tiim nga tiimoon ca geega wa in tayammamta ndéem tiim nga wa anta te yow junubun aji amee janaaba nga fa aw jaboo kon waral nañu ni yëta ni yéene min haa ci janaaba ja xale ka ci yow wa in taraktaha ndéem bàyyi nga yéene ja la dat tayammum mi fa tiim ba fal too aj bi kon na nga baamu asalaata julli ga duuna waxamin ci lul njuumte daa wax ne boo dee tiim nag te fekk na nga amee ca ngaayal farata nga xam ne ngant rek moo tax ngay tiim waaye da ngaa waroon a sangu moo xam ne nga amee janaaba moo xam day jigéen ju deretam jeex mu war a sangu farata kon bu dee tiim day bàyyiwaale xel janaaba ja wala ca ngaayal farata loolee nga xam ne jeexu deret jaa ko waral waaye bu tiimee rek tiimub kese mel ni ku amewul ca ngaayal farata tiim boobu du baax faaw rek ne yéene waale te bàyyi waale xel janaaba joojee wala jangaayu farata la nga xam ne jeexu dara ja moo ko waral faslu li ab dog la fil xayd ci mbërëk kuy wax mbërëk muy reegal wala baaxub jigéen wa muddatihi akub diiram wa maag la nga xam ne yata àllaqu dana aju bihi ci moom li ñuy wax mbërëk wala baax wala reegal te lu yàlla bind jigéen tolloo ci di ko gis mu di ko gis ba ba muy weesu waxtoom ko war a gis bi dara jigéen ci sawukaayam rek noonu nga xam ne wéradi waralu ko am doom waralu ko ndax bu ko am doom waralee day tudd dereti wasin su ko wéradi waralee ñu ne dereti jàngoro la waaye ni ko yàlla bind daal deret ji génn ci moom di génn ci moom ci waxtoom ca tolloo ba mu koy weesu deret jooju daa bari àtte ci lislaam muy ci wàlluk jaamu yàlla muy ci wàlluk lu mel ne iddawoo yooyu moo tax ñu koy jàngale ci téere yi day wax ci dog bii nag moom lu ci aju ci wàlluk jaamu yàlla waxu yadul niswaani woy mbërëg gi jigéen ña fi taqsimi ci séddale ga talaasu ñett lañu ina xottan dem dellu nga xalal maaloo mi ca lañu xam daa tub ki daa in boroomuk tàmbali maanaam koo xam tey la ko mas a gis baadaha kook nekk na ci gannaawam moo taadatun aji baaxoo mooy koo xam ne def na ko defati ko wa xaamilun ak aji ëmb tarjoo toj dana yaakaar bi ci ëmb ba al ifaadata njariñ dane jigéen ñi gis baax boo ko seetloo ci àtteb jaamu yàlla rek moom mën nañ ko def ñetti xaaj jigéen ñi nga xam ne bi yoon la njëkk a gis deret jooju ak koo xam ne gis na ko gisati ko ak koo xam ne daa toll ci ëmb nag ba noppi gis ko li ci ëpp sax ku ëmb moom du gis reegal waaye nag mën naa am mu ëmb ba noppi gis ko ñett yooyu daal li ñu bëgg wax kenn ku ne lu ci àtteem wa aksarul xaydi gën jaa yàggi mbërëk li daatil ibtidaa ñeel boromuk tàmbali xayun mooy fukk ak juróom minal ayaami ci ay fan xindal muqtadaa fa kañuy roy koo xam ne bii yoon la njëkk a gis baax mën naa jekki-jekki ne sotee daal di jeex fa saasa mën naa am itam ab diir bu mat fan mbaa ñaari fan mbaa ñett di wéy waaye daal lu mu yàgg-yàgg ak moom du ëpp fukki fan ak juróom su amee fukki fan juróom te jeexul rek na xam ne jàngoro la mu daal di sangu di jullee ko woor aka def yëpp mel ne ku gisul baax amal lët yi daal jigéen ja nga xam ne iataadat baaxoo na bi ci mbërëg min xabli saa ci njëkk lii fatilka mooy loolee ay li mu ci namm aadatuha baaxam ba udan na nga jàpp daaka loolee fa intamaa daan dem sax na biha ak moom addamu daraja dañu bañ na bu dee ci ñi gëstu naxu nga ne fa init damu dem daraja tamaa daa sax na te it li ñu wax léegi ne fa intamaa daan dem sax na du nangu nga jël tamaada jee mujj doo cee teg addamu ji ko jiitu daa am lu ñuy tolloolee diggante in ak addamu beneen tamaada waaye loolu nag ñiy gëstu nax wu lay gën a yitteel faltasit na nga yokk salaasat ñett minal ayaami ci ay fan laa taxid bul jeng maalam tujaawis li fee jéggiwut tilka loolee xam sa taxaseef ko juróom yow mën ci ay fan fala zayda kon déet benn ndolleen yoo nga tabaru desi ko xalam xonaa ko foofee ki nga xam ne moom gis na baax dellu ko gisaat moo gis na ko gisati ko te tóoruwul ci ëmb kooku kooku day seet fan yamu daa am deretam jeex ba xam tey jii bu ko amee deretam dana jeexam déet su amee fan yooyu mu daal jeex na mu daan jeexe loola kon leer na nàññe su amee nag fan yooyu di taxul deretam jeex nag kon na ci yokk ñetti fan wóorloo ko ba xam bu ñetti fan ña jàllee nag te taxul deret ji jeex na jàpp ne kon jàngoro la kooku nag ñaar la ndax mën naa doon jigéen joo xam ne takk na ne mboolem yoon yi mu gis baax yépp ñeenti fan lay doon kon kooku ñeenti fan rek lay jàpp ci bi yoon su ko amee te deretam jeex baax na su ko amee deretam jeexul nag mu teg ñetti fan muy juróom-ñaar su juróom-ñaari fan yi matee nag moom te teewul deret jay génn mu jàpp ne jàngoro la daal di sangu di jullee ko woor ak joteeg borom këram bu ko soobee bu dee na koo xam daa wuute am na yoon yoo xam ne ba mu gisee deret daa doonoon ñetti fan am boo xam daa doonoon ñeent am bu mu doonoon juróom kon day jàpp lim ba gën a bari bu tolloota gis baax day jàpp rek juróom yi gën a bari soo amee juróom tam jeex loolu baax na boo amee juróom te deret ji jeexul nag mu yokk ñetti fan mu juróom-ñett gannaaw ñetti fan yooyu nag moom ba deret ji jeexut it na jàpp ne jàngoro la daldi sangu te jullee ko woor ak def yépp waaye dañuy jàpp nag ne lu yàgg yàgg deret jooju mënta ëpp fukki fan juróom koo xam ne moom gis na baax gisati ko gisati ko waaye yoon yépp daa doonoon fukki fan juróom su amee fukk juróom ci taxul deret ji jeexit lu ci yokk benn fan tey jekki-jekki sangu rek tàmbalee jullee ko woor koo xam ne itam dafa aada woo am fukki fan ak ñeent door a jeexal bi yoon nag mu am ko te jeexut da ci yokk benn fan rek mu yem ci fukk ak juróom koo xam ne itam dafa baaxoo am fukki fan ak ñett te itam jeex tey nag mu am ko te jeexut te yokk rek ñaar waaye du mën a yokk ñett ñaar rek la yokk kon jàppal ne kooku nga xam ne gis na ko gisati ko lu yàgg-yàgg gën jaa bari deretam mënta weesu moom fukki fan ak juróom te neenaan la bu fekkee dafa am lum aadawoo loo xam ne àggul ci fukk ak juróom bu ko amee te jeexut te ci yokk rek ñetti fan lu may nga xam ne bu ci yokkee ñett mu bëgg a wees fukk ak juróom kon da ci yokk lam ca mën a yokk rek tam yem ci fukk ak juróom ni nga ko leerale léegi ak tawoo gën jaa bareem muy gën jaa yàggam li xaamili ñel aji ëmb baax da abin ci gannaaw ñett min ashurin ci ay weer fa hiya mooy fukk ak juróom yow man ci ay fan uxsub na nga lim wa naxwuha ak lu mel ni fukk ak juróom wa baxda wun gannaaw juróom benn min ashurin ci ay weer xadduhoo limam ba jur yi xameef na ko kaafan muy ñaar fukk minal ayaami ci ay fan li ci ëpp ku ëmb du gis deret jooju waaye nag man naam yàlla dogal mu di ko gis dañuy seet nag ba xam da koy gis njëkk muy am ñetti weer wala gannaaw mu amee ñetti weer jëm juróom benn wala gannaaw bu mu amee juróom benn ba ba muy am doom foofu lay wuutee su amee ñetti weer ba noppi door koo gis la fa dale ba juróom benn weer moom saa yu ko fi gisee rek gën gaa yàggi deret ji du weesu fukki fan ak juróom ba ci ñaar fukk su demee ba ci ñaar fukk te jeexul rek na xam ne jàngoro la mu daal di sangu tey jullee ko woor fa mu amee juróom benn weer itam ba ba muy am doom bu fi gisee deret jooju lu mu yàgg-yàgg du weesu ñaar fukki fan jëm weeru mat sëkk muy fanweeri fan su fekkee ne am na weeru mat sëkk te deret di jeexut na xam ne kon jàngoro la muy daal sangu tey jullee koy woor mu des nag bi mu tàmbalee ëmb ki amagut ñetti weer daal di koy gis kooku daal foofu nee nañu am na yaari wax waaye ba ci gën a wóor mooy day jàpp rek aadaam maanaam maanaam su masaa gis baax nam daan tollu rek ci ba mu ëmb gutoon na jàpp noonu rek ba tey su amee loola te jeexut mu yokk ci ñetti fan ndegam fu ñu war a yokkee ñetti fan la daa am na ñu wax ne dañ koy yemaleeg bam amee yetti weer digganteem ak juróom benn weer ñu waxoon ne fa ji seede rek fukki fan ak juróom lay doon jëm ñaar fukk waaye wax ji gën a wóor daal mooy day jàpp rek nam aada woo ji seede rek ba mu ëmbagutoon murha digal ko bi tal fiixin ci ak tàppe li koy tukkam bi la ngir mu matal aada taxa baaxam ba isam xitaaxu ndem ak dog xasala am na bu fekkee ni moom ni ko deret ji dikkale dafa maasewut day def li ñuy wax jénnal tey mu gis deret bu ëllëgee du ko gis ëllëg mu gis ko ëllëgaat du ko gis kon day wàññi fan yi nga xam ne ci la koy gis te bañ a wàññiwaale fan yi nga xam du ko gis su ko defee nag mu wàññi fan yooyu bu tolloog lañ ko waxoon ne ko sa deret noonu la war a toll rek bu tolloo noonu mu jàpp ne kon deretam war naa jeex bu dee fu war a yokk ñetti fan mu yokk ko fa bu dee foo xam ne war ca yokk ba tey du yokk dara fan yi nga xam ne nag moom du ci gis deret dañ koy jàppee ku laab dañ koy jàppee koo xam ne tolluwul ci baax nga xam daa war a sangu ci bis boobu di jullee ko woor ak jotee ko muy siiwal bu ko soobee. ñu seetlu foofu nag ne buñ ko nee yokkal ñetti fan bu yokkee ñetti fan day jàpp ne. loola mooy aadaam niki bu fekkee da daan am ñetti fan jeexal te jeexut ñu ne ko yokk ci ñett mu yokk ñett mu juróom benn léegi nag na jàpp ne aadaam juróom benn fan la nekkatum ñett walam tajus daganut salaatu xaaidin jullik aji mbërëk wala tawaafuha du caageen ak wër kaabaam wa masu mushafin ak laalub kaamil xalaa boobu kawe na wala laxaa déddi ko ñeel ay don ba tey siyaamun koor motulaxan gum man di doon ay li mu ci namm fardan koorug farata aw tatawu an wala koorug coobarewu ñu koy wax koorug ngàtt nga fa xaqiqan na nga dëggal wala laxaa déddi ko ñeel ay don ba tey duxulul masjidi tàbbi jàkka maanaam dugg jàkka wala bi baytihaa ak donte ci néegam la wala donte ci këram la xalal moo atamadi ci la ñu sukkandikoo laakin waaye xadaaw saw mi fayub koor ga bax da tuxuri ci gannaaw laab ga xale xaa war na ko duuna salaatihaa ci lu dul julleem ga fadri na nga xam nee na jigéen bu gisee baax boobu du saña song rek julli araam na ci moom muy song di julli wala muy wër kaaba moo tax jigéen ji toll ci aj wala muy xumra bu gisee deret du mën a wër kaaba faaw rek mu bàyyi ba deret ji jeex ba mu sangu mu door a mën a wër kaaba ba tey jigéen ju gis deret jooju du sañ a woor genn koor du kooruk farata ni ki ramadaan du kooruk ngàtt nga muy koor gu mu coobarewu du sañ a laal alquran moo xam àlluwa jaa moo xam kaamil baa lu may nag nga xam ne da koy jàng mbaa mu koy jàngale jigéen ji toll ci gis baax te fekk muy jàng alquran ngir mokkal mbaa mu di ko jàngale moo mën nay laal lu mu yittewoo ca njàng ma mbaa njàngale ma bu deret di xasee jeex nag laata muy sangu moom du sañ a laalati alquran ja lu may dafa sangu ba noppi ba tey jigéen bu gisee baax du saña dugg jàkka dañoo jëlee toog fa waaye romb rek jàll aw ci buntu bee jàll ci bële du ko sañ doonte jàkka ja dafa nekk ci biir néegam wala ci biir këram itam du ca saña dugg su ko defee nag julli yi moom du ca fay genn waaye koor ga nekkam kooru farata la woon da ko war a fay nekki jigéen bu tolloo ci ramadaan ba noppi gis baax ba mu tee koo woor gannaaw bu ramadaan jeexee ba mu laab day fay koor ga wa jëw wasoo daganal nañu qiraatul quraani jàng al quraan li xaa ibin ñeel aji mbërëk maxaafatan nisyaani ngir ragal fàtte jigéen nag bu tolloo ci gis deret jooju fekk am lu mokkaloon ci al quraan daañu ko may mu di ko tari ndax bala mu ko fëtt fëtt mooy fàtte maanaam mokkal gu dañ waaye nag suñu te laal téere ba mbaa àlluwa ja lu may niñ ko waxee woon léegi fekk muy jàng mbaa muy jàngale
wala may gis tëgam li saw jihaa ñeel jëkkëram ja an yatta amu laal farjan ab sawukaay laxaa ñeel ko xamdan ci ak tey aw xataan wala ci njuumte sawaa ñëwee yemoo wala lahu déddi ko ñeel daal maa la nga xam ne bay na surratin nekk ndiggante jumbax laxaa ñeel jigéen ja waru kubatin ak bëti woom xataa tutimma boobu muy matal xus laxaa cangaayam la jigéen nag bu tolloo ci gis deret jooju ka muy séel daa war a ormaal la tàmbalee ci mbox ba ba ci bëti woom ba bañ koo laal dëgg la sax la araam dëgg-dëgg mooy jotee moom ci sawukaay waaye dañuy bañ bu laalee diggante boobu loolu yóbbu ko ci lu araam la mooy yóbbu ko jotee moom ci sawukaay kon ku soxnaam toll ci gis dara jooju boobu muy jeex boobu muy sangu na ormaal la tàmbalee ci jumbax ba ba ci bati boobu nga xam ne buy tëdd ak moom itam soxna si lay jël lu tal yeewee ko li tàmbalee ci mbox ba ci bati woom ko defee nag fa des ci yaram woo mën nañ caa jote te bañ a laalante ci diggante boobu faslu li ab dog la fi nifaasi ci dereti wasin xoomaag la nga xam ne yata àllaqu dana aju bi sii ci moom dereti wasin mooy deret joo xam ne am doom moo ko waral moom it daa am àtte ne àtte mbërëg mee muy régal moo tax mu di ko tudd nifaasun wasin xadd badaa moom feeñ na kala xayut mi ngi mel ne ki mbërëg filman añu ca tere ga ak sa ruxoo gën jaa yàggam waxut di da limeef na ko sittiina muy juróom benn fukk yow man ci ay fan tu umaru def na ko digal bil xusli ci cangaay la maxas salaati ànd ak julli ga in baandem feeñ na in xitaaxun ak dog xablaxaa ci njëkk juróom benn fukki fan yi kama zokki na niki miineef ko suma isaaxaa wadaxaa topp ndéem delsi na ci moom addamu deret ja wakaanata nekk baynahuma seen diggante yee jibu fukk ak juróom aw ak sëru mbaalu kóob baana loolu feeñ na fattaani kon aji ñaareel jëmin xumaa ci ñoom ñaar yekkoon dana nekk xayu daan di mbërëk mu tànn fan mu di muñ sos indal faq yi fa aji dégg ja fiq aydan ba tey ba iñ yekku ndeem dafa nekk baynahuma seen diggante duuna yee ji bin lu yées fukk ak juróom yow mën ci ay fan fa damm xoo kon ak tàppeem maanaam ak booleem lil awali jëm ci aji jëkk ja yejibu dana war tuma ida nazarta topp ndem seet nga fil xiyaas ci xiyaas wajat taxoo nga fekk ko mu tam mi man nifaas yi muy aji mott li wasin wa dafa wax ne dereti wasin moog dereti mbërëg ñoo bokk lu ñuy aaye niki julleeg woor ak wër kaabaag laal alxuraan ak yépp rek ñoo ko bokkle mën naa gaaw lool nag mu am doom deret ja na soteet daal di jeex fa saasa waaye mën naa yàgg ak moom nag ba ci juróom benn fukki fan mat yaari weer sëkk door a jeex bu amee nag juróom benn fukki fan ci taxul mu jeex na jàpp ne jàngoro la daal di sangu di jullee ko woor bu ko soobee itam jotee ka muy séyal saa yu deret di jeexee rek nag na sangu jàpp ne laab na su dere ji del siwaatee te nga xam ne mbirum jénnal lay def na nga waxoon ca mbërëg muy jénnal tey mu dikk tey bañ a dikk kon bis yi nga xam ne dere ji du si ñëw tey jàppe boppam ku laab sangu di jullee koy woor fan yi nga xam ne lay gis dere ji nag moom mu jàpp ne daa amee dere ci wasin du ca saña julli mbaa woor mbaa dara ci yooyu bu daraja tegaloo di génn di génn ba yàgg mu jekki-jekki mel ne lu jeex naka mu sangu nag ba tegaatee fan daraja dellu si kon dañuy seet fa nga xam ne fa la jeexe woon ak fa la dellusee ba xam diggante boobu ñaata fan la su fekkee diggante bu matut fukki fan juróom ñu jàpp ne dereti wasin joojee moo jeexutoon lii ca la bokk su fekkee seen diggante nag mooy fa yu jëkk ji jeexe woon ak fii mu dellu see mat na fukki fan juróom mbaa mu ëpp ko dañuy jàpp ne kon dereti wasin wa foofu la yemoon lii mu gis léegi dereti baax la maanaam reegal la mbërëg la jotewut ak dereti wasin ja dara dara noonu rek mooy takk-takk bi saa yu toppee dereti wasinam daal bañ ne jeex na ñu tegaat say fan mu dellu siwaat bu fekkee diggante ba mat na fukki fan ak juróom te loolu mooy gën jaa néewi laab xam ne kon fam jeexe woon ak fam delsee mat na fukki fan ak juróom mbaa mopp ko ñu jàpp ne kon deret ji mujj saat moom ragal la maanaam baax la bokk sa deret wasin ja su fekkee diggante bi nag motul fukki fan ak juróom ñu jàpp ne deret wasin ja moo jeexutoon jii feeñ da koy mottule faslu li ab dog la fi maarifatil awqaati ci xam waxtu julli ya al waqtu waxtu wa yan qasi mu dana séddalikoo lil muxtaar jëm ci muxtaar walit daroor yi ak jëm ci daroor yi la dal axbaar yi fa fóore ya day bëgg a wax nag waxtu yu julli juróom ndax suñu borom bi farataalee julli itam julli gun na ko sàkkal waxtu bu dee ci yoonu Malik nag julli gu nekk waxtoom dañ koy def ñaari xaaj am na waxtu wu njëkk wi tudd muxtaar nga xam ne su fekkee amul benn ngànt war na caa julli bu ci julli wut dana yenu bàkkaar bu rëy rëy xaaj ñaareel bi moo tudd ab daroori yu bàyyi ko ci ab darooratu bi fi di lor nga xam ne ku amee ngànt mu tax nag mu yeexe ba ca xaaj ñaareel ba mu julli ca moom du amee bàkkaar mu wax nag kenn ku ne muxtaaru zuhrin muxtaarum tisbaar min zawali shamsi mu ngi tàmbalee rëccub jant li aaxiril xaamati ba ci mujjub taxawaay ba duuna labsin ci lu dul lant wal xasru takkusaan muxtaarun muxtaar laxaa ñeel ko min xaama nga tàmbalee ca xaama ga ilaa waqtis firaaril ardi ba ci waxtu gelug suuf sa lal yooxe du caagéen soxug jant ba inqilan na nga xellu amat daroori yu ndaal daroori yu li haazayni ña li la yaar ma an boole seen fa li xoroobil yooxi jëm na ci soxu jant ba inda man fakka nga xam ne waa wattu na dafa jëkkee tisbaar mu ne tisbaar day muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu jant bi rëccee jant bi rëccee yaa ngi koy xàmmee ci gannaaw bu jant bi fenkee rek jëm june day am takk ndeer boo xam ne day féete sow te takk ndeer boobu li jant bi gën di yëkkatiku mu gën di wàññiku bu jant bi yëkkatikoo yëkkatikoo ba àgg nag ci fa nga xamee ne fa la mën a yem ci yëkkatiku takk ndeer bi itam foofu lay mën a yem ci wàññiku kam doon wàññiku bu jant ba bàyyikoo foofee nag ñu jàpp ne rëcc na boo xoolee takk ndeer ba li muy jeex tàkk bariwut la cëpp day des la muy des mën naa gudd mën naa gàtt dañuy bàyyi nag ba mu def as keppaar ker ga jëlër bi ko su fekkee ne jeexoon na tàkk itam moom ker ga ñu bàyyi ba geneen ker sosuwaat ba def as keppaar ñu door a jàpp ne foofa la muxtaarum tisbaar tàmbalee foofu nga ne nag fa la muxtaar ma tàmbalee dana dema dem ba jenn jëm ju ne boo natteeb takk ndeeram mu gudde ne moom te konte waale woo ca na takk ndeer ba toll woon ba tisbaar di jot manees naa takk nag ne nit ku ne bu nattee ñeenti xasabam mooy tolloog ak taxawaayam ba tey bu nattee juróom ñaari ndëggum mooy tolloo ko taxawaayam kon mënees na ne na ker ga toll woon ba ñuy wax naa tisbaar jot na soo waccee loola xool nag la ca yokku mu mat sa ñeenti xasab mbaa mu mat sa juróom-ñaari ndëggu dalal di xam ne kon muxtaarum tisbaar foofee la yem foofee muxtaarum tisbaar yem nag fala muxtaarum takkusaan moom di tàmbalee am dana wéy di wéy ba nga xamee ne takkusaan yi suuf jot na ker yi jàppaloo boo xoolee naaj mu xaw a xong nga xam ne na naaj wa weexe woon ci bëccëg bi dañ na su boobaa foofu la muxtaarum takkusaan di yam kon seetlu nga ne fa muxtaarum tisbaar yam fa la muxtaarum takkusaan tàmbalee kenn ku ne nag boo bëggee xam daroor yow da ngay wax rek fa ma yemale woon muxtaar ma la fa dalee ba jant bi so mooy daroor yow nga xam ne kon bu dee tisbaar da ngay wax ne ba takkandeer guddee ne borom takkandeer ba te gonte waale woo ca na ker ga toll woon ba tisbaar di jot foofu nga waxoon ne fa la muxtaarum tisbaar yam la dalee foofu nag ba jant yi bëgg a soo nga xam ne genn jullee ci xaj loolu lépp mi ngi bokk ci daroor yu tisbaar su ko defee takkusaan tam na nga waxoon ne bu takkusaan yi suuf jotee ba ker yi jàppaloo naaj yi yéexatut foofu la muxtaarum takkusaan yam